mi ngi leen naan course sur boole moo leen di tàkkale mbokk yi Mathia mbokk yi Mathia mi ngi considéré ay juge laaj na Diène Diouf laaj na Zarko ndeysaan mi na ki nga xamante ne ñoom Diène de mi ngi arrière Diène def na des arbitre sifflé na il fait vingt heures trente-huit Diène Kaïré mbokk Anta Zarko jóge ci ki nga xamante ni mbokk yi moom dafa dugg duggaat mu nekk combat boo xamante ne ñëpp ñu ngi ko doon xaar journée Ibou Laye production ndeysaan Zarko mbokk yi moo féete à gauche Diène Diouf Kaïré moo féete boo xamante ni tey ku ci dina am fu la yóbbu waaye ci kaw Zarko bu dee dafa daan dafa am ki nga xamante ni contrat da ki nga xamante ni moom mooy waaye mbokk yi Diène Diouf Kaïré dafa daan combat dina am foo xamante ni dina ko fa mu nekk combat boo xamante ni ay ay technicien lañ combat boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañ ñii nag ñi ngi naan suñu songoowee ci tànk lay jeexee mais nekk na combat boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp xas-xas doon nañ bokk internautes yi le tigre de Dakar di Diène Kaïré nekk à droite nekk à gauche ñaari xale yi digg géew bi dara xewagul mbokki internautes yi ñi ngi lewtoo ñi ngi lewtoo ñoom ñaar Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kairé ndeysaan Zarko mi ngi def ay déplacement l'enfant de Grand Yoff ndeysaan l'enfant chéri de Médina di nekk Diène Kairé combat la boo xam ne ah Diène gëdd na Zarko Zarko Diène Kairé ndeysaan Zarko day échanger tànk yi mais Diène Kairé mi ngi def ay déplacement Zarko Diène Kairé Zarko Diéne Kairé di féliciter ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci bëre ñi ci ak ñi daanu mais Laurent Ndiago ñu ngi koy encouragé di ko la le meilleur reste à venir Tafa Gueye doo naa ak ñëpp lamb waaye mbokk lu xew lu xew Zarko Diéne Kairé lu xew Mathia mi ngi wax ak ñoom arbitre sifflé waat na mënul ñàkk combat la boo xamante ne ñoom ñaar ñëpp a ko bëgg Zarko Diéne Diène mbokk yi moo féete à droite ndeysaan Zarko moo féete à gauche Zarko Diène Kaïré mais Zarko échange yi def man moom ma jaaxal Diène Kaïré waxoon na dina xam ay une su ñëwul mu dem en tout cas ñoom ñaar ñëpp a def ay déplacement bisu mag la te bisu mag kenn du ko fowee combat bi daf leen a jaral ñoom ñaar communiqué nañ te ñi ko bëggoon bari na waaye mbokk yi bu leen fàtt ah jël na tànk bi Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kaïré ñi ngi bëre ci suuf Zarko Diène Kaïré takk na ko Diène Kaïré Zarko ñi ngi bëre la ilaha illallah Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kaïré ñi ngi bëre ndeysaan ñi ngi teewoon te ñoom ñaar Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kaïré ñi ngi bëre ñoom ñaar munu ñàkk ay bërekat lañ Zarko Diène Kaïré lu xew Diène da koo bëgg a kal mais Zarko nanguwul Zarko Diène Kairé oh ñi ngi bëre Zarko mi ngi wax kan lay waxal Zarko mi ngi naan ko defal ndànk Zarko Diène Kairé tàmm na ko Zarko tàmm na buy bëre di wax Zarko Diène Kairé Zarko Diène Kairé ñi ngi bëre Zarko Diène Kairé Zarko Diène Kairé Diène taxaw jàpp na mais Zarko jàppul Zarko jër Kayre Zarko jër Kayre oh Zarko dafa diis da koo bëggoon a songale Diène da koo bëggoon a songale Zarko jër Kayre Zarko jër Kayre laay la xela la oh Zarko daan Kayre oh Zarko daan ko Zarko da koo cabaxal waa lii lan la Zarko

Jofan fi wa